kookan la ñu ne moo du gayndee borom kéemaan ak mën a faj ku fa ñëw rek sa aajo daal di faj mën ci hémorroïde ci ndoxum siti ci jabet ci góor gu tële wala góor goo xam ne da nga am jafe-jafe sëy ci tension ci asthme ci sinusite prostate ñoomi nerf sciatique ak yooyu nga xam ni moom moo jaaxal nit ñi muy dimbali jigéen ñi lool ci faru rab coro rab am na ay ñaan pour ku ba tukki ku bëgg place wala sax koo xam ne dañ laa liggéey am na tamit ay jaaro yoo xam ne jaaru kéemtaan la ko xale yi wax nga xam ne boo ko takkee cat du la topp bëri bayre boo ko takkee dangay ngay bëri wërsëg waykat boobu ñuy wax sax moomu la takk am na jaaro boo xam ni wàllu kaaraange la am na jaaro boo xam ni cat du la topp am na sax jaaro boo xam ni da lay aar ci ay accident ak yeneen ak yeneen kookoy sëriñ bu mag bi mooy sëriñu ñëpp moom la ñëpp wóolu yéen annonceurs yi Kémane Vision moom leen di invité ngeen ñëw ci Kémane Vision bu def leen ay xéwal ngeen am ci moom ay prix yoo xam ne du ngeen ko gis fenn ci Kémane Vision rek ngeen koy yéen annonceurs yi yéen ñiy jaay wala bëgg ko fésal seen produit acca Kéemaan Vision pare na pour defar ci njëg bu mu gën a gën a gën a gën a wooyefe maanaam mu gën a ciidee mu gën a wooyefe mu gën a tampe ndapax bi taxee ñëw leen saa neexam yi jar na bàyyi xel xiiroo beeg bi ci biir kër gi lay xee jàllo mi moom kër gi amul suwaa tey muy jaay kër gi ndaama aaye ko ko ñaan ku faransé la bây giờ jayo weer bi daan teel đi ba mu ne leen di gaaw a de di gaaw fët fët sa không di di di moom moom moom xam naa moom li kay lay moom yomb na moom fët fët mu de lay à xaas mac mu de xaas mac mu de ah bési moom am na yu ñëwatu alaba alaba mëkkalati moom damaa yaakaar mëkkalati mëkkalati moom gëj naa ñëw mëkkalati moom gëj naa ñëw kaa duñ ci bàyyi xel ko bii bii boomuñ dee na bii damaa yaakaar daa xamoon rek lakket lakket lakket yu rëy ala nii rek kii lay laaj Samb mi ngi fi waaye man duma sa booy nga ñëw di tàppaate di neexalaat ci fi ay booy nakam man sa booy man duma sa moroomu baay maa ngi sa xaw ma mooy France xaw ñëw taxaw fi ma ay booy ay alsama dama sa morom waaw sama morom maam waaw tegg sa loxo bi rek booy wax léegi ngeen tolop waaw léegi jeex na paa njool bi tamit nekk fi anam mi ngi fi gisuma ko eh yow laay waxal paa njool bi da ngeen dëkkee ñaa ngeen a gisoo ko paa mi ngi fi gisuma ko li ñuy wax sa dox bi mu ngi nii waaye eh, eh kër gi maa ngi yow la ko fi nekk te war ne talaj buntu googu ñëw fekkal fi ñu sama ngadul comme ndox waa koo xafa këppi. laajte nga yow ah. laajte nga sa leew gi ngay gi ngay jaay gaay di leew seen kanam paay ba ngay waxtaane waaw gis nga soo koy leew di ko mbii fu fa di ko di ko wëndeel mbaay mbaay di ko wëndeel mbaay ba mu ne nga xam ne leewoo soo bëggee faka da leew la su la leew jàngale kaay ma jàngale leew maa la a leew fuuf ñetti yoon réewoo de da ngaa dof mais yow suñ ku ma fekk sax may wax ak yow man yedd sama xam naa fi ma koy fekk bu nekkul féeréer mu ngi kër lëb. waaye sama tur nekkul dinaa wax kër lëb nga nekk kër séeréer sax wala góor yàlla bés bu bés bu bés bu ay kuur bés bu wàccoo ay kuur da nga xam ne lépp dëgg si boobaa ci may xam waaye man tam ci boobaa ci laa xam. bangun sewa kuma su ne isi ga fara kuma so dai kuma sai iski ni ni ni ni kuma sana ya ko gumo ko xamul won mom duma ca bok ndax boba tay joxe guma wa gaynde legi est ce que no trouver solution formation du de formation mok école yam de det formation du wess man bama sañon ndax la tok ci kër gi ba ci kanam man ba demé fi kan lama nekkal kan moo maa jox ma lekk ka maa jox ma naan. jaay na ci loolu laa sonn bale beeg raxas boobu lii di mel ni tooloon man lii mënu ma koo bale de. moom man mënu ma maa la seen di jaay de. maa la seen di jaay la bàyyi aw la ma am. lébu di gënaan. loolu weesul waaw. Oh, gone yi sax day léegi moom ñu ci bëri mm. waxuma sax ndax moo ma tax. ñu ci mm. bari ci ñoom. Mm. dañuy dañuy wuti formation rek dem di ki ak yoy rek waaw moom de formation la wax duñ len former waaw dañu mujjee ah. formé leneen ndaya non ki formation la bëgg def pour liggéey ah waaw waaw ah. foofu la ah, waxee waaw waaw waaw di nijaay xam nga man waxi garal duma ko tontu problème bi moy ma ragalu man boy wax ak man ngay pa di garan di diggu dom da ngay jàkkaarloog man wax déglu rek ni nijaay xam naa li ma lay wax kii ki sa nijaay la mais yow kii lu muy wax ni ba bo xamni ñak mandu rek gaynde wa ni nijaay legi xam nga lan la dama la bëgg wax ben affaire xamna ni bëri nga xarit lool mais xarit si jamono ji ñu toll dañ koy tànn. jogale xaaral ma wax la li mayma li ni jaay gis nga xarit boko tanut dina la duggal ci yo xamanteni di nga tok naan ki sama xarit la wala sama xarit amatu ni jaay xamna li malay wax. xarit si bopam mo amatu dañ lay indil di lo yobul te wut moy kon nag yow mom yow mom mën a formation nag moom boo ma ko mënta lii rek ma uti ko. demal demal demal demal. ñol neex ma te aw say waxi formation yooyu sax na ma ko lijjanti am Euh, lébu comprendre xale bi non non comprendre que gaynde defal naa man waxal ma ay waxam ndax bu ma toogee muy dajji dajji sama kaw te tëggoo ko mbéj ak ni ma mel ak yow waaw waaw defal ndànk rek lébu ah, kii sa jarbaat la loo bokk yaag ndaya a bokku ndey baay bàyyi wala jarbaatu bi yaa ma neex la <coughs> manax ndayam waaw noo bokk benn baay yaag ndayam a bokk benn baay benn baay votre série revient après la pub Dizertec, Dizertec. Vous êtes étudiant, élève ou professionnel. Vous souhaiterez acquérir ou développer des compétences dans les domaines de l'informatique, numérique ou digital. L'école Dizertec vous propose des formations accélérées, pratiques et qualifiantes de 3, 6 ou 9 mois avec des professionnels dans leur domaine. Nos modules informatique bureautique, maintenance et réseau, infographie audiovisuelle, développement web et mobile. L'école vous propose aussi des formations métiers comme la gestion de caisse, secrétaire assistant de direction, les métiers des centres d'appel. L'école Tech, nous sommes à HLM Grand Yoff, à côté du collège Yacine Tchondo. Appelez-nous au 33 867 08 WhatsApp 77 170 81 81. Desertec, des compétences qui vous servent. Ce kër gi néeg bii a koy waaw xale bi fu muy fanaan. di wuy ma rek mën a yow yàlla taxawal sa genre enquête yi uma enquête déet xam ne xale bii nga bokk ak moom benn néeg fooy tëdd ak moom fu muy tëdd yéenay bokk lal aw dafa ñaaw xalaat trop di di ñaaw ma xalaat waaw dafa maa ma mab jar ñaaw waaw fu muy tëdd si mam ni ci fan si suuf nga tëdd ci kaw kaw doo daanu jékki-jékki rek wëlbatiku daanu nan la maa daanu nan la ma daanu lébu dama ma daane lébu mag nga kii xale bii mag la dugal si man après na ma la dugal ba si mam nii comme aw daal dax la wax rek ma wan la fi ma kaa lalal ah bi faa ko sësal lébu yow da nga di mag te mag bu lelewee moomatul boppam saa waay rafetal xalaat waaw te ñii xale bu ñuy tëdd rafetal ko ki kii alamab jarbaat nag rafetal ko waay la wax salti na trop nag wad noonu rek xamoo fooy jógee ci guddi eh ah. kii masula oddu kii tubay laa fi naanoo toujours si néeg

def a gën lu mu deful ñi ko xam a gën ñi ko xamul dem fa gën ñàkk fay dem kooku kan la Serigne Modou Gaynde borom Kéemaan borom càngat gi borom kànnaar gi borom ndombaay kaaraange maca raison bu kaw Kaolack kër Sambara xinjoobeen Serigne Modou borom kànnaar gi askan bi tuddee loo ca tëj loo ca tëj moo di kànnaaru gàllaaj goo xam ne booleem soxla boo ca def ci wàllum ut ut am am wala sax pexe ba fegu ci sa bopp kaaraange gi looloo ko tax a jóg yéen ñi nga xam ne dañ leen a yoreel boor ngeen di dangi dangi a dang dangi di ci Modou mu leen ci kànnaar gi den wax ci seen soxla seen aajo faju biir a ngi nii goo xam ne itam ku ne ci réew mi war na koy wut ñi ngeen gis ñu am ko ci réew mi ci moom la ñu ko jëlee moo di ñetti jaaro yi benn bi bàyyi la yaay ak doom ñetti jaaro la yoo xam ne mbooleem lu lay ubbee ci sa buntu àdduna mbooleem lu lay aar mu ngi ci ñetti jaaro yi Serigne Modou Gaynde Kéemaan moo ko fi am ci réew mi leneen loo dul jëlee feneen fudul ci moom Serigne Modou Gaynde Kéemaan moo di ndombaay wëllu mag ndombaay wëllu mag ni turam ku ko takk dana la aar foo mën a toog koo mën di jëflante teg ba ci sax sa yooni tukki ndomba gi da lay musal ci l'accident ñi ko yore ak fu ñu mën a toog jëye ju fa man di wax ci feek ñu ngi ànd ak ndomba gi yàlla da di musal ci barkeb barkeeb ndombaak wëllu mag gi lu manul ñàkk ci dund moo di koom-koom bu nit ñi amee nga am soo wutee am boo toogee itam di gën di am mooy càngatu fataan fataan càngat gi sang bi moo ko fi def ñi ko xam duñu ñu fa gëj ñi ko masalaal rëcc wuñu ko càngat gi fataan fataan la foor na fooraay goo xam ne ku repp koy laal ñaari yoon ci at mi ko mooy ci at mi génn réew mi benn wala daañu la ñamal kaso ñaar loole nag mooy firndeel fooraayu càngat gi te la mu koy defee seerul lii yëpp ma wax nag ay mbir la yoo xam ne liggéey lay laaj balaa koy def ak yow li si xaar ko gis say mbir génne say sarax doog a sóob ak yow ci liggéey bi numéro téléphone 77 972 98 81 Serigne Modou Gaynde Kéemaan Mathieu Kër Sambaraxi Njóobeen bégte la ñeel réew mi di libéré xale bi mu dem xale bi wow na bët de waaw bu xëyee suba ni da nga ko weele foo koy waxee ci këru àdduna te dala koo sosal bu boobaa doo mucc nga ne maa ngi moomu bokku néeg bi balaa ñu koo ah. lijjanti fekk musiba am xalal xale bii mu ñibbi bàyyil kii bàyyil gaynde waay bàyyil gaynde kii mag jërbaat la siilu na ma li kii si huma moom dara turam dëgg gaynde gaynde gaynde kii dina la nil ci gaynde de kii dina la xët de mën na kii mën na ma tënk kii demul dikkul mu ngi fii si man demul fenn xale bii de bi lay wutul formation nu mu la lay wut xale bi li mu xam-xamoo ko de. am na xam xaritam ba fii wan nay ma kayiti formation yi yëpp. bàyyil gaynde bàyyil gaynde waay nu wax si la ne. Oh, d'accord bàyyil nag naan ma utal soxna te ut dama. Euh, booy pata. kala booy bi ëmbaloon euh, rakk ji. ah booy la fii ay waxam. waaw léegi. booy bi. waaw ñëw na sama kër. waaw xale bi réew na. loolu kay kenn waxatu ay waxinam ñaaw na. kenn waxatu loolu attaqué na ma. ni ma fenkat nga. Hmm. da ngaa ñëw jiiñ wax ni da ngeen ne takk takku leen ma ne ko booy ñun ëmbalunu ëmbalaanunu waxuñu man takkuñu takkaanunu. booy tey ngaa dem ci kuréel fuuta bi bàyyi ñu. loolu nu yoon nekk si booy bi buñ ko gaawul wutal ko solution. wax li muy waxtaane dana ko def dinañu tànc foo xam ni du ñu neex. non booy bi ban laa tànc foog ñu tànc ka moom. ñëw na ñu xulloo mu dem mu yónni rakk ji ni woolu ma te bu ma wooloo ñun la woolu. kan la ni naa ko wusi xale bi réew ba bëggal dee. déedéet déedéet ne ñëw na sa kër. waaw yoon ne. waaw oolu la aw. waaw waaye oolu waa fekk aw des fois daal la def rek dax ma ci bëgg ne xale bi bu dajee ak man tànc ma bu dajee ak yow dina la tànc ndax yéen dafa ni ma dafa ni ak yow lébu ak pulu fuuta bi ku ma mais waaw dama si bool père sa kër laaj waaw sa dox boobu waaw ma xam ne yaa ngi fii ci kër bi parce que yow boo nekkul foofu rek yaa ngi ci léegi. parce que yéen ñi ay kàccoor ngeen. lu pël Fuuta bi dugg yéen ko ci dugal. man nee naa du ma leen bàyyi lan la lan mooy sa problème. ah yow daal booy yow ala accu nga lan la. yéen pël bi bu rëccee dem Guinée man fan laa koy gisee. pël baa ngi fii fii la dëkk amul dara Guinée li mu am yëpp fii la ko am këram yi fii la ñu ne alalam yi fii la ne pël bi dëkkul ak ñun sa mook peul bi la na la jital ba keur peul bi am yow da nga ragal peul bi te ñame ñu ñun. lutax ma wol lañu ñu woo. mais booy man man si mat naa la bay yow ya ma wara a fekk si te am na loo xam ne mënuñu ko waxtaane sama keur wala ñu ko waxtaane sa keur sa keur sama keur lañ ko mëna waxtane waxtaan. du ma fa waxtaan ak yeen ndax xam nga lutax tax. mat bay ñing ci jàkka ja. way léegi déglu ma mais du yeen way man sax dama soxla woon man mii dama ko soxla won man nga soxla waaw ma lay déglu wax dañ laa soxla kii gis naa la booy man xam naa ne méchant woo yaw mhm. xam naa ko. seekar dafa ni salaana fi gën a gaaw a jooy boo ko laalul du boo jooy. dëgg la genn golo gàtt na waaye loo cay laal. borom yëg ko dëgg ndax li ñu def sa sœur ku ko defoon sama sœur. mu jaral ma lii mu la jaral. wala sax.